ab ñu bëgg rek nga présenté wu ak mbokk yi lay seetaan. dëgg la maa ngi tudd Pape Maguette Diop ñu la coordonnateur mouvement LGR la grande rencontre de Gueye Bambilor. alors très bien mu mel ni yéen a ngi ci troisième édition bi nga xamante ne rek euh, ay coup de renforcement la euh, ci vacances yi mu mel ni doomu gox bi yëpp di ngeen leen dajale ci ay établissement pour rek euh, mun leen a tàggataat ci nga xamante rek mooy seen jàng mais également daara yi. ak nga xam ne mooy franco arabe yi li ni waaw loolu moom soo ñu ci laaj dañ ciy sawar wax bu baax a baax parce que kenn umpalewul bi mooy troisième édition bu ñuy amal ci cours yi parce que ñu ngi ko tàmbali depuis 2016 booba léegi nag bàyyiwuñu dañuy xool chaque vacance ñu xool ñi nga xam ne suñuy raq suñuy frères et sœurs ñi nga xam ne ñu ngi ci quartier bi Médina Fall et environnant ñu jéem leen bu fekkoon un mois sax ñu organiser leen cours yi cours yi nag du lenn lu du lo xam tay suñu raq yi nga xamni ñu ngi ci quartier bi jàppale leen parce que tay l'éducation dafa doon lo xamni dafa am njariñ bu baaxa baaxa baax ci dëkk bi parce que amna sax manam ci ñenn ñi ci bindkat yi naan l'éducation est l'arme la plus puissance pour changer le monde loolu nak biko LGR LGR xamee ba léegi ci loolu lañ ne moo tax chaque fin du euh, chaque vacances dañuy organiser ay cours pour jappalé suñu rax yi ndax cours yoy tay xalé yoy ñuy jappalé tay mun nañoo ñooy doon ëllëg parce que éducation boobu suñu tambalé ni xalé yi dañ leen di bàyyi ñu foo rek pendant 3 mois suñu leen bàyyee trois mois ndax kilifa yi nee nañ xale su dëkkee fo su màggee mere ko ko deful dara lool lañuy bañ nak pour tagal xale yi pour éveiller leen ba xamni manam chaque vacances dañuy organiser ay cours yo xamni ñun wa LGR ñoo koy amal ci suñu njiitu président donc moom suñu président su fi nekkul sax ñun ñi nga xamni ño ño fi nekk porter volonté pour ñëw di couler cours yi loolu daal lañ amoon ci lu ñuy def comme vacances mu doon loo xam ni benn activité loo xam activité boo xam dañ koo pérenniser ñun waa LGR ñaata xale tey ñoom ngeen dajale lim bi ci lan lay toll. dëgg la première édition bi ñu ngi tolloon ci soixante dix élèves. bi ñu yàlla suñu borom dimbalee ñu dem ba deuxième édition bi ñu ngi enregistré woon 186 élèves ren nag alhamdulilah sama borom tamit mu ngi ñuy dimbali duñu sutural ba ñu ngi enregistré 200 élèves ci 200 élèves yooyu soo xoolee élémentaire bi ñu ngi am 124 élèves soo ñëwee ci collège bi ñu ngi fa enregistré 61 élèves nga ñëw ci lycée bi ñu ngi fa enregistré 14 élèves au total mu ndokk 200 élèves yoo xam ne maanaam enregistré nañ leen ci cours de vacances yi ren te li ni mel dañuy gis ni bu euh, kii bi jeexee da ngeen leen di euh, outiller maanaam di ngeen leen jox ay fourniture parce que bu ñuy xool Médina Fall nekk na zone boo xamante ne euh, bëri na ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te njàng li nga xamante ne mooy moyen moo koy def li ni mel est-ce que ba léegi dañ koy yeesalaat. dëgg la loolu moom ça continue parce que LGR lépp lu ñuy def ñaanuñu yàlla mu mu mu arrêté. lépp lu ñuy def dañuy ñaan yàlla chaque année sans borom duñ ci suturaal ñu koy gën di mën di ko gën di def parce que d'ailleurs sax loolu moom ñu ngi ciy xalaat bu baax a baax a parce que xale yi ñuy jàngal yëpp ndax bi xoolee umpale woo leen bi cours yi di tàmbali même ñi nga xamni ñom lañu la récompenser année bee passé ñom ñep ño leen jox cahier ak bigg yu ñu jàngé ren année cours yi kon lool tamit dañ bokk na ci manam ci suñu action ak suñu activité yi ñuy mën inshallah dinañ jàppal xale yi ñom ñep ben journée bo xamni dañ leen bolé ñom ñep dajale leen defal leen manam ben journée bo xamni journée de récompense lay doon xol classe bu ñu ne ñu jël fa 5 wala ba 6 ño xamni ñoy meilleur élève yu classe bu ne ñu jox leen jukkal de lo leen jukkal wo seeni parents xamal

esprit bi nga xam ni maanaam xam-xam bi nga xam ne am naa ko ma dem partagente ko nga koy partagente samay frère ak samay sœur loolu moom acte bu noble la dañ leen ci remercier bu baax a baax a baax parce que am na ñoo xam ni jàng nañ am nañ li ñuy am mais lii leen kon ñoom su leen yàlla dimbalee may leen xel boo xam ni seen xam googu ñu am ñu ko bëgg a ak seen i rak loolu dañ leen ciy sant bu baax a baax baax a baax a mooy gars yi nga fi gis yëpp parce que soo xoolee cours yi chaque année man maa ko doon piloté waaye ren di yàlla def na maa ngi feneen ñeneen tamit ñoo volonté wu pour piloter ko kon loolu cela prouve que ni LGR du maanaam dafa doon benn groupe boo xam ne groupe bu solide la LGR dafa doon benn groupe boo xam ne ku ku tey kuy def tey ba nekkoo fi keneen tamit dina def te dina def lu kawee la nga daan def kon loolu daal dañ ciy sant bu baax tamit suñu suñu suñu nimbalu président parce que noonu moom la ñu yaree loolu lañ tàggatee tàggat nañu ba waa LGR fi mu toll ñi nga fiy gis ñi ñëpp tey jii gis nga am mëgëy mu taxaw di wax waaye am na ñu nekk ci ginnaaw mëgëy ñoo xam ne ñoo gën a pare fuuf mëgëy lu mëgëy di wax ñoo koy wax loo lu mëgëy di def ñoo koy def loo kon loolu tamit dañ ci sant bu baax a baax parce que loolu lépp ci nimbalu suñu président Guèye Bamba loolu alors très bien mais li ñu mel tey bu ñuy wax dafa mel ni la grande rencontre moom ci coppitem li mu xalaat mooy balaa nga def dara da nga jiitu ci njàngale mi également ci tàggat ci ay formation mu mel ni jigéen yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Médina Fall jot nañu bénéficier wu li ni dëgg la comme ni nga ko waxee rek parce que euh, LGR moom du loo xam ni day jékki-jékki rek yam ci benn activité rek non non ñëw na ci éducation. pare na su pare éducation day dem ci leneen comme ni nga ko waxee formation femme yi c'était une formation en transformation céréale locale biñu leen ko defalee ñu leen ko defalee woon chambre des métiers ba d'ailleurs sax ñoom femmes yooyu ku ci ne am nga ci diplôme boo xam ne moo lay permettre foo munti dem ci àdduna soo ko présenté dinañ xam ne kii kat am na professionnalisme ci domaine boobu kon lool tamit dañ ciy continuer duñ leen bàyyi benn yoon te ñu ngi def ay démarches yoo xam ne incha allah ay financement yoo xam ne ñu koy démarché di ñaan yàlla suñu borom sottil ko ndax femmes yooyu kat suñ defee formation ba pare nga jàngal leen liggéey day laaj benn suivi suivi boobu nag LGR ñu ngi ci ñu ngi ciy waxtaan ñun ak suñu président di xool ay moyens yu ñu pour mun a appuyer femmes yooyu ba jox leen benn financement boo xam ne dina leen permettre loolu ñu jàngoon dinañ ci mun a gagné benn marché boobu produire ci di mun di liggéey di jaay di versoir mouvement liggéey boobu moom ñu ngi ci te loolu duñ ci yam tamit parce que soo xoolee tamit LGR maanaam day xool maanaam li nga xam ne population bi yittewoo na ko LGR nekk ca comme ni ci mel ni tey projet Ramadan bi nga xam ne moom lañ doon def xool nañ bi koor gi ñëwee tey jii am na loo xam ni nit ñi ñu ngi koy def muy wàllum ndogu tey LGR ñu ne ndogu loolu kat ñun waa LGR sagam dañuy wax ci développement la ñuy wax te jii mun na ñoo duggee ci cas boobu comme cas social la mais développement la tey jii nit ñi mënoo dugg kër gu nee nga jox ko ndogu mais mën nga def de telle sorte que woote benn ngoon goo xam ne yow di nga euh, joxe budget génne xaas bu bëree bëri investir ko maanaam pour togg ay ndogu yo xamni kep képp ku yàlla xéwale ak barkel la nga mun koo fekkee di ci mëna xewlu bu baax a ba lol tam yemuñ ci ASC yi nga xamni ñi ngi won ci koñ bi muy 3 ASC yi nga xamni mi ngi fi muy ASC Medina Fall ASC Avenir ASC Renaissance loolu tamit xam nga tey ku wax walu vacances di nga wax walu nawetaan day doon bo xamni ne benn volet boo am importance la ci dëkk bi surtout fii ñu nekkee tay ji président Gueye Guèye Bambalo def na de telle sorte que ASC bu fi nekk tamit ci 3 ASC mu yëkëti benn ballon bo xamni original ballon jox lako pour manam xeetu participation lay doon te amna yenen yo xamni ñu ngi koy préparer ASC yi tamit ñu ngi ci suñu kanam xamna lu ñuy gën di dem action yi ñi gëna xalaat lool dinañ dinañ dinañ ci ñëwaat bu baaxa baaxa baax a baax. alors lan mooy doon woote bi appel bi. waaw appel bi mom lenn la rek bëgg nañu maanaam képp ko xamni ne yaa ngi yeewoo ci euh, gox bi muy Médina Fall gi ñu ngi lay woo parce que LCR comme li ma koy waxee rek ubbil nañ suñu buntu ñëpp jëluñu kenn suñu buntu suñu objectif mooy Médina faal

te loolu tamit dañ ciy continuer da ci lancer appel bu baax a baax surtout jeunesse bi ñu ngi leen di lancer appel bu baax a baax a baax a baax parce que mbir mi du mbiru waa LGR rek mbiru jeunesse bépp la jeunesse bépp ñoo war a ñëw jàpp ci ndax mbir mi mu dem parce que dañ naan l'union fait la force mbooloo mooy doole mbooloo boobu nag maanaam moom la ñuy ci ñëpp. ñëpp ñëw jàpp ci ndax LGR vision ak fa mu visé ak àgg fa sans borom defal ñu kàttan ba mun ñëw àggale foofu loolu daal la ñuy lancé gaa yëpp ñu jàppale Gueye Bamba te xam ni moom doomu Medina Fall la doomu Thiès la doomu Sénégal la. man maa ngi tudd Askale Diagne euh, nekk secretaire général bu mouvement la grande rencontre. taxawaay bi tey lan nga siy defee jàngat. waaw tey euh, dama am contenté. ndax euh, mouvement la grande rencontre dafa am objectif objectif am mooy indi le développement te tey ñun ñëpp xam nañ ni développement sans changer le niveau de mentalité des personnes mënuñoo def développement sans changer comportement tout ce qui mënul ne ni dañ éducation parce que l'éducation est la base de tout processus de développement donc c'est normal pour faire quelque chose il faut commencer par le commencement T'ay ñun dañoo gëm ni am conviction ni devons apporter un changement radical t'ay tey indiwul li nan commencer wuñ t'ay fi éducation compris cela, là moo tax la grande rencontre chaque année que j'ai fait yamul kase ci organisé des cours pour encadrer les yi gunge ci seen wàllu xam-xam ak yooyu mais day participer ci côté social mooy li mu doon wax léegi jënd ay fourniture jox ko tey xale ñu dem tey ngir tey seen waajur yi loolu wàcc leen tey kuy œuvre ci wàllu développement yaakaar naa di dox ci loolu tey kon yaa ngi ci yoon pour apporter le changement kon ñun tey ci loolu la ñuy dox et puis nous faisons un appel ñëpp ñoo xam ne développement yitteel na leen.

école la boo xam ne franco arabe lay jàngale tey jii boo gisee école bi tey jii boo duggee ci classe yi tey soxla na ay équipement tey équipement yooyu c'est des moyens qui le tey ñu ngi def appel ñëpp ñu ñew jappel école yi aussi moy jappel walé en même temps medina Fall parce que jàppale école bi moy jàppale medina Fall xale nga fi gis ñu jang ni medina Fall lan dëkk tay kon bo jàppale école bi tay mu nekk dans des bonnes conditions am équipement am tout ce qu'il faut tay ya nga jàppale medina Fall kon ñu ngi wo ñep tay je parle au nom de l'école aussi ñu ñew jàppale école bi nga xamni dinañ am lepp luñ soxla pour mëna a suñu xalé yi. Je m'appelle Mamadou wad Fall Mamadou wad Fall je suis un étudiant.

oui parce que tamit gis na ni moom bu dee ci wàllu familial suñu borom dimbali na ko mënoon na li mu am mu yemale ko ci ak famille waaye defu ko da koo jël partagé ko ak ñun chaque fois li fi fiy nekk comme ni ko mëgee waxee li mu fiy nekk bariwul waaye tout le temps mi ngi woo ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy membre yi nga xam ñoo jiite mbir mi kon ku mel ni askale Pape Diop ñooñu ñu ngi déggante ñoom ñoom tamit ñu ñuy rendre compte parce que tamit su ko neexoon mënoon na jël li mu am mu yemale ko ci famille waaye defu ko chaque fois bu dikkee moom li muy wax mooy maanaam avancement wu zone de plus particulièrement Médina Fall loolu moo ko ñor loolu moo tax ñun tamit ñu joindre ko ci loolu. ko euh, ci li nga bi nga xam ne waaw daayira bi moom taxawaayam ci daayira bi vraiment ñun lu nu rafetlu la ci njiital jëwriñ Serigne Bathie Gueye ñu ngi koy jaar baax ndaxte chaque année. ba ci année bi passé nii kon ni ko Pape waxee daf daan def maanaam professeur yi jàngale moom tamit récompense bi du yem ci xale yi nii jàngal dong mais ñun prof yi jàngale sax day jënd ay jumtukaay yoo xam dañ koy soxla mu ñu koy jox waaye bi ñu ko waree jox ñun ñi dañ koo jël jëmalewaat ko ci daayira bi kon mel na ne lu jëm ci ay basan yooyu yëpp da koy jënd di ko jox daayira bi di jàppale tamit maanaam élèves yi nga xam ne danoo nekk ci daayira bi parce que su kon su fekkoon te nii da koo yemale si njàngum français donc waaye xale yi nekk si daayira bi fi ne daayira bi nii ñu ngi si liggéey bi di si jàpp waaye du kere bu ci daayira bi def du big bi ci daayira bi def wala boo xamante ni kay la lépp ci xaalisam la jógee moom moom Guèye Bambaloo. kon lan ngeen di woote bi lan lay doon appel. appel bi daal c'était juste ñu woo ñëpp ñu ñëw maanaam. ndax jaamu yàlla moom dafa bari ay branche bari ay bànqaas yu ñu ko mën a defee moom comme dañuy woote ñëpp ñu ñëw jàppale ko ci li nga xamante ne nii moom la bëgg parce que ki bëgg fu mu fanaan ak ki bëgg ko ko wéetali defe naa ne tëjal bunt bi du leen boole borom bët yi met ak ki bëgg a nelaw it yaakaar naa fayal laam bi du leen boole comme moom daf ñoo bëgg a jàppale ñun ñu bëgg ku ñu jàppale defe naa ne ñun ñëpp war nañoo mobiliser wu ba nga xamante ni bu déwénee dinañ am beneen école bu dul école bii nga xamante ni membre yëpp dinañ ñëw ndax information bi moom jàll na fépp lépp luy waru garam mi ngi koy def su ko neexoon kon nii rek mënoon naa joxe rek ñu nekk ci cours de vacances waaye duñ lijjanti mais chaque fois mi ngi woote di laaj ñu cours de vacances yi di déroulé après tamit dina def ay cérémonie culturelle yoo xamante ni journée culturelle yoo xamante ni dinañ ci mën a def woo parents yëpp maanaam wax leen li nga xamante ni moom la nekkee woon ci vacances yi vraiment ñu ngi woo ñëpp daal ñu ñëw jàppale ko mu jàppale wax dëgg yàlla yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax ci prestation bi nga xamante ne nii si ngeen ñu jàppalee ba ñëw répondre ñu ngi ñaan tamit ngeen bëgg liggéey bi yegg fa suñu borom yeggale leen fa